j'ai quatre-vingt-dix ans borom quatre-vingt-dix ans kenn du ko wax ci junior nag bi ne El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu mu tedd ma junior waaye xanaa léegi nag moom dem na bu yàgg man mi ko doon wax am naa quatre-vingt-dix ans waaw te moom waxoon na bi koy laata dem bu ko kenn wax ci junior nañ ko grandi loolu ma wax ci ak ci conférence bi ni ku wax di junior naa la porté plainte waaye ma wax bëggee nag benn xale daal mu ne Junior ma ne ko waaye yow xanaa da ngaa déglu li ma doon wax mais dama ko fàtte baal ma ministère bi mu tàmm Moustapha Moustapha sama doom bëgg dem benn waaye ñëw rek yaram bi tàng jël micro bi ci dimanche ji wax a wax ni am na ñetti tur am na junior am na amin am xawma lan la Moustapha ndekk dégg na ko ci néegam riir ñu ko yee eh, bu ko waxte junior à partir d'aujourd'hui maamati man tuub naa ko dootul naan sama cité bi lay naa ko ubbi naa ko pour tout képp koo xam ni doomu aadama nga rek ñëwal dëkk jullit ak ku dul tijaan ak ku tijaan ku bëgg dëkk rek animiste ak ñëpp ku bëgg dëkk rek nañu ñu ubbil ko bunt mu dëkk dogal ko suuf mu teg fa néegam mu ni kenn rek laa boolewul ci suma cité yi ku may indil ay ndax moom nit yi jàmm mu la ma nekk daf daan wax ni moom de diineem du ko woote ci ay daf koy woote rekk ci jàmm tubaab yi la daje loon waaye fexe na rek bu wut benn prof ndollu bu mu mën a jaar pour que diineem ñoŋ te du joteeg tubaab yi dara moo tax ñu ni ku yéemale dafa fexe ba diggante ñuul ñuulu kaw jiir ak dóom mu jaar fa te ñuulul weexul kooku ku xere ñuul man woo ndax dafa fekk tubaab yi installé boobu ci dënnu Sénégal yi ñu am conflit armé avec buuri cedd yi fi nekkoon mu ñëw doxal diineem te jëlu ci kenn partenaire ndax li muy doxal ak la ñuy doxal du benn